doomi sëñ Talla Kane nga xam ni masha Allah jàmbaar la lool ci daayira bi moom la ñuy décorer photo bii di organisateur kon suñu xarit ñëwal nii Thank you. yombal la lool ci dee bi noo ngi sàpp ñaanal ko suñu borom yokk ko teraanga ci bàtt Seexul Xadiim suñu Xaadim tam organisateur suñu Xaadim jërëjëf kon nga jàll ci ki suñu xarit ma jëm cosaan moom suñu xarit la ak alxuraanu karim ñoom ñaan suñu borom yokk ay teraangaam ndax moom yi damaa defal teraanga bu rëy dafa am loo xam ne dama koy jël da jël di ko yëkkati jox moom si Moustapha Ndiaye bi nek fekkatu cosaan nekk si kii maasa xayram ñoo ngi ñaan suñu borom yokk ay teraanga ci si xol kon nga jaar ci ci des soxna Ndongue Diop Ndongue Alaaji Mour Diop moom la ñu décoré ana soxna

rabbi ajibu laa tarudda daawati bi jaahi xayril mursalina xutbati mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen nuyu te di siyaara bu baax di leen baalu àq te di leen baal ñan yàlla mu boole ñu jëkkal boole ñu aar boole ñu sàmm boole ñoo nangu suñu jaamu yàlla yépp te bu ñu ko nangooyee mu fulal ñu ko te bu ñu ko fulawee yàlla nañu ko làqal fu yàq eggul yàlla am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci barkeb Seexul Xadim Xadim Rasul di jiital ci nuyoo bi ak siyaara bi alxalifatul aam li taifatil muridiya ak Seex Muhammadunil Muntaxa yàlla na ko yàlla yàggal ci sunu kanam mu yàgg ñëw jiite ba naal yi mu naal yi yëpp yalla ko suñ borom may kartan ak gudd fan ba mu yeggale ci barke mamam ju tedd ji di siara bu baax di ñaanal jëmm ju tedd ji nga xamni mom lañuy fatali ko tay di Serigne Touba kon jangale jàngalekatub alquran dem gep mu def ko ci alquran ko suñ borom xey yobbu ko aljanna yalla ko bu bolé sa siddiqin ya ak suhadaa ya ak salihin sàmm aar njaboot gi fi bàyyi tàmbalee ko ca Cheikh Mahamadul Moustapha Sill al imaamul akbar sëñ Mouhamed Sill ak mbooleem njaboot gi fi bàyyi di doom di ay sët ñëpp ñu leen di siyaara bu baax di nuyu bu baax jëmm yi nga xam ni ñoo taxawal bis bi waaye bala ñoo ñëw ci loolu day suñu mag yu baax ji nga xam ni ñoom la ñu féete ndeyjoor te suñu mag di suñu lépp ñu bokk lépp ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaara tey jéggalu kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati ci kanamam tey jéggalu yi nag toogandoo gi nga xam ni toogoon nag nanu ko moom ci kaw ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax a baax di siyaara bu baax mbokk yi tedd yi nga xam ni ñoo taxawal bés bu rëy bii di bésub alxuraan di bés boo xam ni bésub fàttaliku la jëmm joo xam ni la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni saa bu ñu dee fàttaliku nit ñu baax ñi yërmande suñ borom da cay wàcc te Sëriñ Tuubaa ci jëmm yooyu la ko suñ borom bi subhanahu wa taala bolé kon ñi ngi siar bu baax jëm yu ko taxawal mel na ni buñ ci tuddee jëmm yi nga xamni suñu ñew fi ci ñom la jaaré di Serigne Modou jaay ak Serigne Mbacke sek communicateur Serigne Sam day melni bo boo yóbbu na mbooleem waa daaira bi di nuyu bu baaxit nak wa daaira yi nga xamni ñoy ñaanal way dawle daaira bobu ñu leen nuyu baax te leen siara di jiital ci nuyo ba ak siara ba Serigne Gora mi nga xam ni euh, jàmbar la borom pëstéef la bokk ci kër Cheikh Ahmadou Ndoumbe mu nekk dayre boo xam ni képp ku di jullit war na caa bokk ndaxte képp ku di jullit bu nekk ñoom li ñuy ñaan ñoom bis dana ñëw ñu di la ko ñaanal mbaa ñu ñaanal ko sa waajuru góor mbaa ñu ñaanal ko sa waajuru jigéen kon nag bokk ca daayira ba waral ca teew dara ëpp ko solo waaye daayira jot ngay gis ay nit ci mbedd yi ñuy taxawaaloo di football te man na dem ci daaira ba lum gatt gatt ñu wax bismillahirrahmanirrahim wala ñu jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddik ajuma gu sel gi lolu dali aduna jël kon nañ bayyi xel occasion yi ñi am bu baax di ci def lu baax mbokk yi ci teunk bu gatt rek ñi waxtane ci ndariñu xam-xam xam-xam nak moy li nga xamante si ni moo taxoon suñ borom bi subhanahu wa taala ginaaw bu jaamu yalla jalle te jaamu yalla gogu xam-xam mo koy leral suñ borom bi subhanahu wa bi muy soññ yonante bi sallallahu alayhi wa baat bi mu ko njëkk a mooy jàngal kon loolu tegtal la ci ni kon ab julli daaw la jàng tegtal la ci ni ab julli daaw la jàng li mu ko njëkk a wax mooy iqra yonante bi sallallahu alayhi ni ko maanaa bi xaali man jàngu ma boobu suñ borom mi ngi ko jaarale ci Jibril aay bi njëkk wàcc ci alquranul karim mooy boo waaye mu ne ko mu mu uh, Jibril waxaat ak moom ne ko iqra mu ne ko maa ana bi xaari jànguma yonent bi salaay salaam ummi yi la woon mooy mënul woon a liir dañ ko daan liiral uh, yonent yàlla Jibril wala uh, waaw Jibril malaayika la maa ngi jum ci yonent yàlla gi ma ko wax malaayika la ne ko jàngal yonent bi ne ko jànguma bu daat koy gësam gësam ko bu gësam bu xaw a metti ba bi salaay salaam ñàkk tooy xib mu ne ko lan laay jàng mu ne ko iqra bismi rabbik jàngal sa turu borom kon day mel ni kon jullit bu jàng mënut a ñàkk ci moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ci xadis ni sàkku xam-xam farata la ci ab jullit bu góor ak jullit bu jigéen sàkku xam-xam farata la ci ñoom moo xam góor la moo xam jigéen la kon day mel ni kon war nañoo jox àq xam-xam xam ni lépp luy leer lépp lu war a leer lu nekk li koy leeral mooy xam-xam lépp luy dox lu nekk li koy doxal mooy xam-xam te xam-xam li ko tax a jóg mooy lan mooy mu dàq ak réer ak li nga xam ni nit ki da koy dund ci àdduna te mënut xam lan la ci suñ borom wax bu jàngee xam-xam loolu daf koy daf da ko koy daal di leeral moo tax suñ borom di wax ni yonente bi salaay salaam di ñaan suñ borom di ko ñaan ci alquran ay yoon yoon naan ko maa ngi lay ñaan yow saa borom nga dollil ma bis bu nekk xam kon day mel ni kon xam-xam du doy ci nit ki yonent bi salaay salaam daana ko ñaan kon mbokk yi xam-xam mooy li nga xam ne mënut a ñàkk ci dundu doomu aadama gi moo tax boo demee ci Sayyida yi day wax ni bu fekkoon ne ndam war naa am ndam ndam moom kenn wul koo def waaye bu fekkoon ne nit ki war naa ndam sant aw as sant aw sant ci askan wu rëy nit ki waru cee ndam nit ki warut a ndamoo ci baayam mbaa mu ndamoo ci ndeyam mbaa mu ndamoo ci juddu bu rëy bu mbokk waaye bu fekkoon ndam war naa am kenn rek moo war ndam mooy ki xam mal faqru illa bi ahlil ilmi innahumo alal huda li man istahda adillaaw mooy borom xam-xam yi ñoo ñi nga xam ne ñooy tegle tegtale ak njub bu fekkoon nit ki war naa ndam kenn wërta ndam ku dul borom xam-xam mu daal wax ni na ngeen góorgóorlu lu baax ci xam-xam fa fas bi ilmin taxis xayyan bihi abada anaatu annaasu mawta wa ahlul ilmi ahyaau ahyaau Seydina Ali nee na da ngeen góorgóorlu ci sàkku xam-xam te bu ngeen sàkkoo xam-xam de di ngeen dund ba faw da ngay dund ba faw moom même boo faatoo da ngay continuer dund xam-xam boo ko amee même boo faatoo da ngay continuer dund kenn ku nekk xam na ne suñ sàmbay yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana yi gën a kawe suñ borom bi tax wa taala wàcce na a dogal ci moom waaye ba tey nit ñaa ngi jàngee ci moom li ko waral mooy lan ci xam-xam la doon dox sëriñ Tuubaa mii suñu yaakaar sëriñ Tuubaa mii suñu yaakaar ci xam-xam la doon dox bis bu nekk nga ngàbb sa téere dugg ci daara wala dugg ci école ñu jàngale téere sëriñ Tuubaa kon day mel ni kon xam-xam nit ki bu faatoo sax day continuer day continuer ci moom mooy lu am solo alayhi salaatu wasalaam ne woon na bu nit ki faatoo jëfam yëpp dagg na ba mu des ñett ñett yooyu danañ ko gën a leer ci kanam moo tax Seydina Ali wax ni euh, nit ki bu amul xam-xam rek même bu dee dund sax mën nañoo wax ni néew buy dox la même bu dee dund ndax kenn ko boole ci lenn du dem ci jotaay bën jël dara même bu doon xam-xamu français sax baax na ndax boo jàngee français boo demee ci jotaay mën nañ laa këlkin loo nga këlkin ni leen nangam ak nangam la loolu sax tu moo tax xam-xam nit ki daf ko def cee war a daf cee war a góorlu ci ak ci ak dundam xam ni mënut a ñàkk ci nit moo tax benn waykat wax ni xam mooy dundal xol comme exemple bu mooy bu ñu toogoon tey jii nii ba mu yéex a taw yéex a taw loolu nga xam ni ñi dañuy jàq ci bëgg am ndox ñu jékki-jékki ba mu yàgg mu taw xam-xam noonu la mel ci tey jii boo jàqoon ci xam-xam wala jàq ci ku la leeral dara jékki-jékki ba mu yàgg gis borom xam-xam buy ñëw da ngay xam ni kii li nga bëggoon mën na la koo leeral xam-xam noonu la mel. moo tax mu ne xam-xam mooy lampe buy leeral nit ki xam-xam mooy làmp buy leeral nit ki comme ni nga xamee ni nit ki bu duggee ci ak lëndëm limi soxla wo moy lamp ndax bas bi bu tekki ci ko won fay lamp yi kenn du gis samoro xam xam non lay leral nit ki tek ko ci aw yoon احمد الخديم دي وخني واعلم بان ما تفاوت الورى بالعلم والدين يكون فاصبرا وبهما يفضل من خفض لا لا بانتسابه لمن قد اعتلى سيدي توبا نينا خم نيت ني تي لي ني راونتي تي خم خم waye du ci askan du ci juddu bu kon xam-xam ak diine rek ci la ci la nit ñi di rawantee mbokk yi xam-xam ban njëriñ la am ci dundug nit ki suñ borom bi subhanahu wa taala day wax ci alquranul karim bi ñi ñi ñi ñi xam ak ñi xamul duñu bokku mu moy ñi nga xam ne suñ borom dimbali na leen bañ am xam-xam du yam ak ñi xamul loolu duñ duñ ma sa yam qul hal yastawi ya'lamuna wa lazina la ya'lamuna mooy ñu xam ak ñu xamul duñ bokk mukk moo tax suñ boroom di wax ni suñ borom di wax ci alxuraan ni man saa borom danaa yëkkati ñi nga xam ni gëm nañ yàlla waaye ñu ma tey teg mooy ñi nga xam ni ay boroom xam-xam lañ ñooñu danaa leen yëkkati bañ am ay daraja yu mag a mag a mag kon xam-xam loolu rek fa la mën a yóbbu nit ki mooy dana leeral aw yoonam dana tax mu xam fi mu teg tànkam waaye dana ko may daraja ju rëy rëy rëy. ca suñ borom waaye ak ci moromam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax ni képp ku yàlla namm ci moom aw yiw képp ku yàlla namm ci moom aw yiw dana ko déggloo diine kon tegtal bi mooy ku déggul diine te góorgóorluwul ci diine suñ borom namul ci moom aw yiw képp ku yàlla bëgg ci moom aw yiw dana ko déggloo diine kon diine mënta ñàkk ci nit ki te diine li koy leeral mooy xam-xam motax tax yonent alayhi salaay di soñe ci xam-xam ni kep ku soobu yoonu xam-xam kep ko xam ne yaa ci yoonu xam-xam di ko sàkk da nga xam ne borom bi subhanahu wa taala yombalal na la al janna suñu borom dana la yombal al janna lolu moy dan kep ku ku teggu ci aw yoon di sax xam-xam da nga xam ne yaa nga sa bop ci al janna kon lolu mbokk yi war na tax kenn ku ci alayhi ci xam-xam nee na doomu aadama bu faatoo léppam dakk na ba mu des ñett tuddoon naa ko léegi ñett yooyu mooy lan mooy sadaxa jaariya mooy nit ki tabax ab teen gasub teen wala mu taxab tabax ab forage wala mu tabax jàkka wala mu tabax ab école wala daaree alquraanu karim nit ñi di ci jariñ nit ki bu faatoo jëf jooju dutu tagati ku fa jàng ca daara ja ku naan ca ndox ma tuyaaba ji da koy fekk foofu mooy sadaxa jaariya bi ko ñaareel mooy xam-xam boo xam nit ki daf koo bàyyi ci àdduna ñu ci jariñu mooy xam-xam boo xam da nga koo bàyyi sa ginaaw nit ñi di ci jariñu tuyaaba ji saa bu nit jariñoo ci xam-xam boobu tuyaaba ji da lay fekk ci fa nga tëdd wala nga bàyyi doom ju baax ju lay ñaanal doom ju baax kon exemple bi mooy lan mooy saa bu la yàlla dénkee doom xam ne daa war a jàng saa bu yàlla dénkee doom xam ne daa war a jàng alxuraan ndaxte alxuraan jooju nga koy teg ci aw yoon mu di ko jàng moo koy gindi ëllëg boo ko wanee ginnaaw ci alxuraan jooju ci lay gindikoo boo ko wanee ginnaaw yi ci alxuraan jooju la lay ñaanal te nit ki bu xasee faatu li muy gën a soxla aw mooy ay ñaan rawatina sa doom ji lay ñaanal direct lay doon ci yow kon loolu it yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci soññee moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ni képp ku génn ci këram di sàkku ci xam-xam jóge ci këram di sàkku ci xam-xam mi ngi mel ni ku nekk ci yoonu yàlla ba këram mu jël si ci këram mooy bu faatu woon bu faatu woon si yoon wi faato won ci yoon wi ci yoon ci yoon yalla la faatu wax yeen yenn nga gis koy def ba di kërëm day ndeysaan dem ba ci yoon suñu borom di këkkub dogal ci mom koku da jihad tertama aljana la jëm lu am solo la kon njariñul xam-xam ci dundu doomu adama bi ba nit ki tax mu wër ci gorlu bu baax rawati na ndaw lan moy fexé ba ndaw jang day tax manam dañuy am ndaw ñu teggu ci aw yoon buñ fexee ba jàng dañuy am tegu dañu am ndaw ñu tegu ci aw yoon ndaxte ndaw ñi taxawal lii mën ngaa wax ne ay ndaw lañ mën nañoo bokk ci ña nga xam ne dañuy dem ca beneen liggéey boo xam ni bokkut ak bii kon buñ fexee ba ndaw ñi jàng rek pour ñu tegu ci aw yoon rek day yomb kon loolu bokk na ci njëriñul xam-xam buñ fexee ba ndaw ñi jàng yi liñ bëgg ci avancement ci am réew dañ koy am buñ fexee ba ndaw ñi jàng liñ bëgg ci avancement ci am réew dañ koy am ndaxte réew mi war na noo mën a dem ba doomi daara yor waaye bu fekkee dañuy bàyyi réew mi ñuy jàng français di ko yor donte dañuy jàng français bari na ñu ñu ñu ci ëpp baax nañ waaye xamuñu seen diine kon day mel ni problème dana am waaye buñ fexe woon ba ndaw ñi jàng alxuraan jàng xam-xam jàng français ñu teg leen ci réew mi lu bari bari mën naa changé loola it ab ab soññe boo xamante si ni kenn ku nekk ci ñu war na cee bàyyi xel ndax nit ki bu xamee diine saa bu demee ba jiiteem réew dana bàyyi xel bu baax li nga xam ne moom la ko yàlla sant ku muy tëj dana xool ci yenn condition yi la koy tëjee ku muy jël alalam dana xool ci yenn condition la koy jëlee ku muy bundu dana xool ba xam kii ndax jaar na ci yoon wala jaarul ci yoon boobaa kon loolu moo koy dimbali moo tax njiit dañ ko war a tànn lu am solo buñ fexee ba ndaw ñu jàng yi dañuy mucc ci ci ay xeex buñ fexee ba ndaw ñu jàng dañuy mucc ci ay xeex mooy guerre yi ngay gis ak Euh, grève yi ngay gis ak rayante gi ngay gis ak buñ fexee ba ndaw ñi jàng seen diine loolu lépp day daal di jeex ay salaamaaleykum wa barakaatu buñ fexee ba ndaw ñu jàng yëpp jikko ju rafet day daal di tasaaroo mooy koo romb rek day daal di baax bon dootul yombati buñ fexee ba ñëpp jàng te ci te nit ñi ci lañuy rawantee mooy ci ci xam-xam ak diine waaye nag ci jikko ju rafet benn waaykat yi ne woon na. wa innama al umamul axlaaqu ma baxiyat wa in huma dahabat axlaaquhum dahabu nee na peuple bu ñu koy wax dëgg-dëgg mooy jikko ju rafet moo tax ñu di ko wax bu ñu fexee ba nit ñi amuñu jikko ju rafet mën nañu wax ni lépp jeex na kon loolu rek ci te jikko ju rafet ci xam-xam rek ci lañ ko ci lañ ko mën a amee buñ fexee ba ndaw ñi jàng mbokk yi wér-gu-yaram day yomb buñ fexee ba ndaw ñi jàng wér gi yaram day yomb ndax te jamono jii nii da nga dugg ci famille ba famille bi jeex takk doo ci gis benn docteur li ko waral mooy lan mooy dañoo fexewul ndaw ñi jàng bul jàpp ni nit ki war a jàng rek mooy alxuraan képp la war a jàng waaye fexee na jàng loo xamante si ni ëllëg da ci dañ ci mën a dimbali sa bopp waaye da ci mën a dimbali sa askan lu am solo la fexee bañ a dagg teel a dagg njàng mi ngir bëgg alal Sëñ Tuubaa nee woon na yow mi sàkku xam-xam sa wërsëg yàllaa ko yor waaw mi sàkku xam-xam sa wërsëg yàllaa ko yor te saa bu jotee suñ bo dana la ko kon bul jàpp ni xam-xam bi ngay sàkku da lay ci sa wërsëg doon tardeel mukk bi ci toppaat mooy buñ fexee ba ndaw ñi jàng maanaam tedd nga day yokk xéewal day yokk ci mbooleem réew ma nga xam ni ñu am xam-xam boo xoolee réew yi réew yi ci gën a avancé réew yi ci gën a avancé ci mbooleem réew yëpp moo réew yi ci ëpp xam ci seen dal mooy réew yi ci gën a avancé réew yi ci ëpp ndaw yi jàng réew yi ci ëpp nit ñi nungoo liggéey ñoo ci gën a avancé loolu am solo la kon mbokk yi fi ñu daanale suñuy kàddu mooy njëriñu xam-xam ci dunduk Serigne Touba moom nan la gisi xam-xam moom sëñtubaa Touba nag moom léppam xam-xam la Serigne Touba dundam gépp xam-xam la téere bi nga xam ne mooy mooy téere bi gën a siiw ci téere bi balaa ngaa dugg ci benn téere moom ngay njëkk a jàng ci mboolem téere yëpp مقدمة تيري ومي جانغالي داني يا أيها الصبيان لا تستغلوا عن الهدى وبالعلوم استغلوا ين بولين داو نيب بولين ييتي ولن لودول خام خام بولين ييتي ولن لودول خام خام اكو مجوب كون موم سوغنينا موم كيب كو اجي تي موم كو نيك داغا فخي جان بولا يالا ديمبالي با سام با سام جانغ راو لا دا فخي دباتال كو سانجابو موتا جانغ رويس انت صلى الله عليه وسلم نيوانا من المهدي الى اللحد mooy nit kii fi mu gënee àdduna ba keroog ñu koy teg teg ci koosu bàmmeelam sàkku xam-xam du fi wees bu la yàlla dimbalee ngay dund ba amul njaboot nga gis ni yow sam njàng maanaam soriwut fexeel ba jël sa njaboot nga yóbbu leen ci daara ji ñu jàng bis dana ñëw ñu jariñ la te bu sa njaboot ji dugg ci ay nooxóor suñ borom mën na laa dimbali ba njaboot nga nga yóbbuwoon ci daara ji ñoom duñ ca bokk moo tax mu soññoo moom Sëriñ Tuubaa yéen mbooleem ndaw ñëpp bu ngeen ragalee gàcce adduna ak da ngeen jiital xam-xam ci jëfe yaa masara subbaani in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala amal kon dañ mel ne ko nit ki bala moo dem ca jàkka ja di julli dafa fexe ba xam nan lay jullee ba noppi loolu mënut a ñàkk ci nit mu ni fasaari'u turan ila taalumi wa jaahidu nufuusa yéen ñi askan askanoo ci man moo xam jullit ñi la moo xam ñi aju ci man te di ay taalibe na ngeen gaawantu jëm ci xam-xam na ngeen jihaat ak seen bakkan waaye na ngeen dégg li ngeen jàng kono sujuba wacco nanngam adi o hani o man nahakum ani taallumi fo huwa khalifatul ayni al mujrim sëñ Tuubaa nee na képp ku leen tere sàkku xam-xam mooy xalifab saytaane ci kaw suuf képp ku leen tere sàkku xam-xam bu ngeen jàpp xalifab saytaane mooy ki jiite saytaane yi da ngeen jàpp ko moo xam ne iskullu man fi sa zamani mana min taallumi fa innahu daa bi bidaatin saniatin isil amal لم يكن بين علمي صابه خلل سنتي وانا يعني كيف كو خامي غور غور لو تي جامانو جي ساك خام خام با نوب غاوان توتيا جيمتيا بو تي غور غور لو دا يانغي ووتا تي بيتا بو خامن تي سيني بلا بو نياو نياو تي ليغا نيك دي نجوم تلا كون نورا ديف موي داغا ورا باي لاغا نيك ديم فاسيني ساكو جي خام خام دالي واخني خام خام اك جيفه mooy ñaari wurusu gànjaru yi nga xam ni ñoo gën ci ñaari kër yëpp adduna ak alaxira li fi gën mooy xam-xam ak jëfe adduna ak alaxira li fi gën Sëñ Tuubaa mooy xam-xam ak jëfe te nit ki bala moo mën a jëf bala moo mën a jëf daa xam waaw ku xamul laajul ëllëg xaw ma wala yam loolu Baye Moussa waxoon radiyallaahu anhu mooy ku xamul laajul ëllëg yoomal xiyaam xamuñu saw lay moo tax Sëñ Tuubaa wax ni xam-xam ak jëfee ñooy ñaari wurus gànjoor yi gën a sedd ci àdduna ak àllaaxira daana wax na it ni is kullu aamilin bilaa ilmin yura fa sahyuhu mislu habaa'in nusira Sëñ Tuubaa nee na képp kuy jëf te li muy jëf tëgg woo ci xam-xam jëf jëmi jëf poussière bu ñuy jëli la mooy ëllëg yomal xiyaam suñ borom dana yëkkati jëfam jëmam kawe lool toll itaas mu ne ko diw sàngam yaa doon jëf li mu ne ko waaw mu ëf ko ëf ko muy ngelaw mu ne ko ndax ba ngay jëf da ngaa xamuloon lan la ci lislaam wax kon nit ki bala moo mën a jëf na xam na xam ne mu jëf moo tax Sëñ Tuubaa wax ne xultu waxad xaraba rabbuna ala mu ala kulli mukallafin ala maanu xila fi'lan bi gayri ilmi xukmi shar'i fihi fa sa nasu dalilun qati'i daa di wax ne man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsuhu abada wa zalam Sëñ Tuubaa nee na képp koo xamante si nii réere na xam-xamam te laaju ko nee na bu alkoo moo alak boppam bu encore bu nekk moo àll boppam bu tooñee yi tooñul kenn moo tooñ boppam kon xam-xam mënut ñàkk ci nit ki moo tax mu wax ni na ngeen xam bu baax ci ni xam-xam ak jëfe ñoom ñaar ñooy ñooy jumtuwaayu texe nit ki bu bëggee texe àdduna ak alaxira na ngooy ci xam-xam ak jëfe daal di wax ni nangeen ci góor góorgóorlu nag yéen ñëpp ci bépp waxtu nag te ba noppi nag di ko sellal mooy xam-xam boo ko dee sàkk nu ko sellal ngir jëmmi suñ borom bi subhanahu wa taala suñ tubaa wax ni xam-xam day séddale ko ci ñaari xaaj muy xam-xam boo xam ni dalay leeral li nga xamante si ni mënta ñàkk ci sa jaamu yàlla loolu mooy xam-xamu zaahir loolu nit ki da ko war a xam ñaareel bi mooy xam-xamu baatin mooy xam-xam bi nga xamante si nii mooy leeral sa biir li nga war a jëf sa biir yow ak sa diggante ak sa borom te ñaar yëpp nit ki da ko war a xam موتهم ظاهره المصلح لأعمالي والباطن المصلح لأحوالي موي خم خم الظاهر بموي يوينل سيجامو يالا خم خم باطن بموي يوينل سيجر كون نيت نيار ييب لا وار خم كون سيغ توبا واتيونا نيون موتاخ مو واخون ني سوسنا سما يون يونو موري تي لنجو سوس لو ام سو تاي جي بوب دينم تي بيدي مولا نغا ген تي باس بي laaj nit ñi ni leen yoonu murid sëñ sëñ Tuubaa ci lu ko sos bu ndee téeméer juróom ñeent fukk yëpp mën nañu ko bañ a wax sëñ Tuubaa nee na ustu tarixati al ilmu naafi wal amalu saalih wal aadaabu mardi sëñ Tuubaa nee na sos naa sama yoon ci xam-xam bu am njëriñ kon yoonu murid xam-xam mënu cee ñàkk moo tax Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na ko fa yàlla yàggal ku taxaw la ci xam-xam moo tax ku mat a mat di ñaanal la di ko defal ay doog ngir suñu borom guddal fanam bàyyi ñu ko fi suñ borom yàlla ñu rus ci sëñ Muntaxa ndaxte taxawaayam ci xam-xam yaatal na ko soññ na ndaw ñi soññ ci université bi def ci ay milliards ngir bëgg ñëpp jàng jël ay nit yóbbu leen fa te kenn du fay kon moom ëllëg bu bu bu layoon ñi nga xamante si ni ñoom la ko sëriñ bi booleeloon mën na leen a lay lu am solo yàlla na ko fi yàlla yàggal moo tax sëñ Tuubaa ni sama yoon ci xam-xam bu am njariñ ci laa ko sos waaye at ci jëf jëf ju yiw ñetteel ba mooy ci teggin yu yu suñ boroom gërëm kon yoonu murid ñett yooyu mënu ci ñàkk mooy xam-xam bu am njariñ ak jëf-jëf ju yiw ak teggin yoo xam ne teggin yi suñ borom bi subhanahu wa taala gërëm ak njaboot tamit ci la leen yaroon Seexul Xadiim ak njabootam gépp ci xam-xam la leen yar da ko commencé ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada ñoom ñëpp ci xam-xam la leen yar mbooleem ñi mu defar mbooleem ñi mu defar ci ay mag tarbiya leen tarxiya leen ñoom ñëpp lam njëkk ci ñoom mooy xam-xam la leen njëkk jàngal mooy jàngal leen alquran jàngal leen xam-xam ba noppi tarxiya leen yëgal ci yàlla kon nit ki mënut a ñàkk xam-xam kon yàlla yàlla yàlla nañu yàlla taxawu aar ñu sàmm ñu jëggal ñu suñuy bakkaar yëpp kenn ku nekk ci ndaw ni xam ni daa war a jàng ndaw daa war a jàng ndaxte buñ bokk ci ñi nga xamante si nii dañuy jàpp ne buñ jàngee dañuy tardé ndax seen moroom ñi ngi am téléphone te amuñu seeni moroom ñi ngi dem nangam te ñoom mënuñu faa dem bis boo góorgóorloo ba am xam-xam bis dana ñëw nga raw sa maas loolu moom kenn mënu ci dara suñ borom ko suñ borom a ko dogal ci ñi jàng waaw Sëñ nee na wërsëg bu kiy jàng suñ borom a ko yor saa bu paree bu nekk dana ko jox. kon bu xamtee woon ni damaa war a am teel a am wërsëg wala nangam ak nangam waaye xamteewul xam ne da war a am da war am xam-xam lu cay door a topp topp caa sant ñëpp di gërëm ñëpp lu ci jub ñu sant ko yàlla xam ni moom la lu ci nuru dëng ñu xam ne jëmm ju doon wax la wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëñ Mourtala Mbacke waxtaan wi am na solo <coughs> di fàttali nag bis bi sëñ Yande Gueye moo koy jàngal sëñ Yande Gueye moo ñëw moo koy mujjee sëñ Yande kon bu ko defee dañuy dem ci laaj yi mbokk mi day laaj ni lan mooy taxawaayu jigéen ak borom këram nee na jigéen ban taxawaay la am ak borom këram moom lay mbokk mi di laaj. jërëjëf ci laaj boobu bi xam naa ni tontu laaj moom borom xam-xam yee bu ñëwee borom xam ay dong lañ maanaam jigéen ban taxawaay la am ci borom këram waaw loolu rek waxtaanu boppam jigéen léppam borom këram yonent bi salaay salaam nee jigéen bu borom këram amoon tab tab bu méttee métti taab gi na di génne dëtt ak deret soxna si tiim taab bi tiimale ci gimiñam di ko muuj taxul mu jot àqi borom kër nag mooy li nga xamee ni bu ko soxna amee bu soxna amee ngërëmal borom këram tàbbi àjjana sëñ Tuubaa nee na soxna saa bu ko boromam kër borom këram gërëmee bu tàbbi àjjana directement yonent bi salaay salaam nee jigéen saa matalee juróom-ñaar yi juróom-ñaar yi juróom-ñaar yi bokk na ci topp borom kër ba mu jeexal xadis ba daa wax ni tabbi na aljana direct tey sëñ Tuubaa nee na jigéen saa bu ko kër këram gërëmee tabbi tabbi na aljana waaye nag ngërëmul borom kër moo jafe ndax jigéen ñu bëree bëri nañu war a sëyee ci lislaam xamuñu ko nañu war a toppi seen borom kër xamuñu ko toppatoo gi seen borom kër sax daa des ci lu bari jigéen ñu bëree bëri saa bu ñu waajee bay génn man ngaa wax ne dañuy dem natt wala ñuy dem njaag nangul wala ñuy dem nangam ak nangam waaye ñu ci bëree bëri sañse ngir seen borom kër loolu yombut te loolu nit ki daf ko war di def soxna daa war di sañ seen borom kër. dëgg la daf ko war a topp ci li ko yàlla digal ndax topp sa borom kër mooy topp yàlla ndaxte sa aljanna suñ borom moo ko jox. sa borom kër boo ko toppee bu nekk rek ci lu yàlla gërëm sa àjjana daal di leer li tax jigéen ñi war a góorgóorlu ci topp seen borom kër yi boo demee ci kër yi boo fekkee ñetti jigéen yuy sëy wala nga fekk fa ñaari jigéen yuy sëy ka fa gën ka fa gën le ak njaboot gën ko fa barkele njaboot ga di di di faj buumi gàcce yi doo leen dégg ci lenn mooy ka gën a topp borom kër loolu moom lu ñuy làmb di ko daj njaboot gu suñ borom barkeel ci soxna ci soxna su baax lañ koy def kon jigéen ak xam ci borom këram loolu rek tam tomb la waxtaanu boppam la mooy lan mooy na ko topp ci lépp lépp lu yàlla gërëm rek na ci topp borom këram lépp lu borom këram bëgg subaa ngoon guddi bëccëg na ca nekk te yàlla waaye nag na fexe ba borom këram it saa bu jàddee wala mu def na ko suuf noonu moom soxna si lu ko jubbanti suufeel sa kàddu ci moom li bëgg nga di ko defal bu ko jànni bu ko gëdd jaamul yàlla ci sa borom kër jaam moom yàlla lañ koy def li la yàlla digal ci ay farata def ko waaye nag na nga xam ni sa texe ak sa ñàkk texe suñu borom sa loxol borom kër la ko teg kon jigéen ñi war nañoo bàyyi xel loolu. jërëjëf ci laaj bu am solo te moom mii ngeen di gis maamam sëñ Mandoumbe moo njëkk jox sëñ Tuubaa ak jur gi maamam. ndax moom mii ci teex na taway baayam borom xaabu ga te dende si ibra xuja sin sëñ mëndu ga xaban mbàkke maamam sëñ mëndu ga mooy maamam direct te maamam moo njëkk jox Serigne Touba ak junni kon na ko ñepp ñaanam yaa ci kon wuyé programme bi benen laaj bi ci top mu ni jigéen ban gëdd la am ci lislaam ak ci lan la ko fekkon lolu moy deuxième question bi jigéen ban gëdd la am ci lislaam ak ci lan la ko lislaam fekkon dañu jigéen dafa am fu mu fekkoon lislaam lislaam boobu. mi lislaam. mu mu njëkk muy ñëw dafa am fu jigéen nekkoon. waaw. alxuraan a ngi wax ni. lu jiitu alxuraan di ñëw jigéen bu ma saan am doom muy doom ci jigéen la wàcc boobu mosu waddan boobu wa kazim borom nee na jigéen ma saan am doom muy jigéen nga gis kanamam day day ñibbi mu jàq lool ndax xam ne doom ji am dañ koy rek lu jiitu lislaam jigéen bu ma jigéen bu ma saa judd dañ ko daan rey. am na ci dëkk yoo xam ne sax dañ daan jël jigéen. di tàngal ak diw ba mu tàng jëru ñu di ko sotti ay am ñoo xam dañu jël xali sawara di ko sotti jigéen kon lu jiitu lislaam jigéen foofu la nekkoon léegi nag biñ lislaam ñëwee fan la yóbbu jigéen yóbbu ko ci daya bu kawe innal muslimina lu ci topp wal muslimaat dëgg la wal muminina wal muminaat wal wal xaanitiina. wal xaanitaat wal xaanitaat ba aaya ba jeex. jërëjëf. mooy lan jullit yu jigéen yii ak jullit yu góor yi ñoo yem bu góor jaamoo yàlla suñ borom fay ko fukk jigéen bu jaamoo yàlla suñ borom fukk la koy fay waaye nag du tax mu jot jigéen mu mu du tax ñu jiital jigéen ci kaw góor mooy lu ñuy wax parité parité xaw lan waaw mooy liberté ak nàngam. mooy jigéen jiite góor loolu moo mënta nekk waaye nag ci kaadaru jaamu yàlla ak ci kaadaru àq ñoom ñaar ñoo ci bokk yàlla kon l'islam fu mu fekkoon jigéen fekkoon na ci fekkoon na ko ci ay conséquences yu méttee métt jële ko fa andi ko ci l'islam mu bokk ci l'islam jox ko ay àq yu rëy rëy rëy yemale ñoom ñëpp ci ak jaamu yàlla ñu bokk bu kii jaamoo yàlla ñu fay ko dañuy fay kee waaye day mel ni kon jigéen war naa xam boppam moom war naa xam boppam bu fekkee lislaam axaa mu ñu am na fu mu la fekkoon bu nit masaana jur doom day jàq bu dee jigéen la lislaam ñëw jox la sa àq kenn reyetu la kenn sotteetu la ak diw kenn taalatu la kon war ngaa bàyyi xel bu baax sa bopp yow yaay yow yaay kat moo tax lislaam dafa jox dafa jox gëdd jigéen ndaxte lu baax rek moom lu baax lépp lu fi baax rek jigéen la waaye lépp lu fa mel na ne nit jigéen la jigéen moo tax aleyhi salaatu wasalaam wax ni ëllëg sawara ña fay ëpp hmm. mooy borom musóor hmm. borom musóor ñoo fay ëpp lan moo ko waral mooy saa bu dara xewee saa bu dara xewee rek jigéen a ca poussé nit moo moo ci poussé góor donte danay am lu xew loo xamante ne si ni góor koy def waaye kon nag comme que nag loolu lépp suñ borom defal na leen ko war ñoo xam àq ji war seen digganteek suñ borom. mooy ñu jaamu ko topp waaye day mel ni góor ñi ñoo gën a mën a jaamu yàlla ci jigéen ñi góor ñoo gën a mën a jaamu yàlla ci jigéen ñi te yàlla ñoom ñaar ñëpp la digal ñu jaamu donte nag am na jigéen ñoo xamante ne seen wax dëgg yàlla ñoo mën góor ci jaamu yàlla am na jigéen ñoo xam ne ñoo man seen borom kër ci jaamu yàlla am na jigéen ñoo xam ne dañuy yeewu fajar di julli seen boroom kër sept heures wala neuf heures wala dix heures dañuy am na waaye bu bu fekkente si nii diis nañ man ngaa wax ne juróom-ñett yëpp góor ñi leen man ci jaamu yàlla ndaxte ñoom dañoo am mbir yoo xam dañ ko topp ba loola tardé leen kon nañ xam ne lislaam am na fu mu leen fekkoon jële leen ko andi leen ci wàccuwaay bu rëy sëñ Mbàkke nag day wax lu am solo am ko te xamoo ko ñàkkoon ko te bañ ko noo ko waxee sax ñàkkoon ko te xam ko sax da koy gën kon nañ xam suñu bopp mu xam fi leen lislaam teg jërëjëf ci laaj bu am solo boobu waaw kay jërëjëf suñ moto la ñetteelu laaj bi mu ne lan mooy njëriñ ndaw li jaamu yàlla loo xam ni ndaw soobu di jaamu yàlla ndaw soobu ci yoonu jaamu bu nekk mag ñi dañ day am lu kàddu ñuy wax ci yow nit ki bu fonkee jàkka bis bu nekk dañ naan ah moom di daan nguta liggéey julli rek lay def nangam ak nangam te te maanaam seytaane mi ngi ñëw ci ñoom di la yàqal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee woon na ci hadis juróom-ñaari juróom-ñaari nit ñoo ngi nii ñoo xam ne suñ borom dana leen keral ëllëg aljanna ca ker ga nga xam ne genn ker amul dul keru suñ borom juróom-ñaar yooyu nag bokk na ci ndaw loo xam ni daa xiirtal boppam ci jaamu yàlla ndaw loo xam ne day jaamu yàlla di ko defee ci jàkka ja saa bu génnee ci këram jëm ci jàkka ji xolam day féex bu génnee ci jàkka ji jëmaat ci këram xelam mépp ci jàkka ji lay nekk te loolu jafe na moo tax na ngay gëmmu tëx lu xam ne suñ borom ni mu digee ni ni diglee mag mu jaamu yàlla noonu la ko diggee ndaw te ndaw li bis bu góor góorgóorloo ci jaamu yàlla ci ak ndaw bu doonee mag day noppi bu doonee mag lépp lay yomb ci moom waaye nag ba mënta daal ëllëg ci xam من اللغى وعمر الأوقات بتوبة النصوح والإقبال إلى الله فاز بالكمال ndaw li moom pour mu jaamu yàlla da yomb. waaw nekk ci marché bi yàlla bi rek marché bi koy tàmm te ay cëram day num. ci marché bi la kon loolu ci ci ci loolu la koy yóbbu. waaye boo doonee mag nag. waaw dama ne ci xaw ma kii la ko ba mu mu indi la mu indi la foofu moom la. jaamu moo la war amul leneen lu la Ah, ah, nekk ci marché bi set moom sax marché bi war na ko xam bu ñëwee xam waaye nag ndaw ah. nekk ci jaamu yàlla ba màgget lu yem ki nga xam ne bi mu bu ñëw yànde moo ngi départ di ñëw am solo la kon loolu ci bàyyi xel ba xam ni ndaw li ni waree jaamu waree jaamu yàlla noonu la ndaw mi waree jaamu yàlla jërëjëf a bëri ñu tënk tënk jërëjëf sëriñ Moutalla beneen bi mu ni lan mooy njëriñu muñ muñ nee na muñ lan mooy njëriñam ci diine. waaw ah, muñ de moom wax dëgg yàlla maanaam ajana rek nit moom bu muñee te muñ gi mu commencé ko ci bi ko nattu bi dalee. mooy suñu borom teg na la natt nga muñ ko ci saa si xéewal lay doon ci yow. xéewal lay doon ci yow te suñu borom bi subhanahu laa taala dana ci yokk say daraja te suñu borom bi subhanahu wa taala dana tàbbal aljanna mbooleem yonent yëpp liñ am muñu leen ko may moo tax ñu gën ñëpp. sëñ Tuubaa am mu ñëw ko may sëñ Tuubaa am ak njabootam am ko lépp ko may kon nit ki bu mu ñëwee rek a ko am jërëjëf mooy yàlla ba noppi yàllaa ko digle nit la ko war a def xanaa kay sarti tuub kon sarti tuub mooy lan nit ki nan la war a tuubee mag ngi dañ daan misaal ci nit ki nan lay tuubee mooy boo defee bakkaar day mel ni nga joggi sa tànk bi ci ak xalu sawar nga jël xalu sawar teg sa sa tànk bi boo tegee sa tànk na ngay bëgg mooy ku ku ku la dimbali ba xali ba nga tegg sa tànk bakkaar noonu la mel saa boo defee bakkaar bu nekk na nga mel ni ku teg sa tànk ci xalu sawar bu la nit ñëpp doon jàppoo di la ca tegaani doo ca dugg moo tax kon sartu bi ci njëkk mooy lam mooy bakkaar bi nga defoon nga yéene ni bakkaar bi dootuma ci delluwaat moo ci jiitu bàyyi mooy yàlla gi nga defoon ci sensé yéen ni sa biir dund ni bakkaar bi dootuma ci dootuma ci delluwaat kon loolu mooy sàtt tuub nit ki da ko ba war a bàyyi xel bu baax léegi nag nit ki bu tuuboo ci lu mu koy yóbbu mooy ci lu baax la koy yóbbu day fexe ba bakkaar moom defoon ba di ko tuub mu bañ caa delluwaat saa bu bakkaar boobu nekkaatee ci kanam rek mu fexe ba bu mu ko bu ko defee rek suñu borom lépp lu mu bëgg mën na koo defal benen bi ci top moy lan moy njëriñu julli ci yonente bi salatu ala nabi lan moy njëriñam njëriñu julli ci yonente bi alayhi wasallam kenn mënu ko li yonente bi salaay salaam moo tax sëñ Tuubaa saa bu ko ma santu daan julli ci mom yonente bi da na wax ni ki nay ko ki yor lam ci poosam bañ ko joxe waye ki nay deug moy ki deug sama tour yu tuddu ko te ci julliwul ci man sallallahu alayhi wasallam bokko na ci njëriñ li mooy ki sa bu jullee ci yonente bi benn yoon yonente bi da julli ci mom fukk yoon te li am solo mooy suñ boroom wax na ci alquran ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yàllaa ki malaakaam dañuy julli ci yonte nag yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim yàllaa ki bi kon yéen dee leen julli ci moom kon saa boo jullee ci yonte bi benn ci jariñam yonte bi julli ci yow fukk boo jullee ci moom fukki yoon yonte bi julli ci yow téeméeri yoon boo julee ci moom téeméer yoon mu jul ci yow junni yoon boo julee ci yonent bi salaa salaam junni yoon yonent bi nee na ëllëg yoomal xiyaam sa mbagg ak sama mbagg ba aljana ah loolu si njëriñ la jërëjëf beneen laaj bi ci topp mu ni lan mooy njëriñu sàkk lu leew maanaam liggéey atteeb sàkk lu leew atteeb sàkk lu leew loolu si jërëjëf wa talabul alaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri waxamin laa yanfa'uhum al-ilmu wala al-ibaadatu bil akli lil arabi sëñ Tuubaa nee na sàkk lu dagan farata la ci ab jullit kon atte mooy nit ki sàkk lu ci moom. kon léegi bu ñàkkee sàkk lu dagan ngir bëgg sàkk leneen nga xam ne mi ngi dugg ci musiba kon farata la ci ab jullit mu góorgóorlu ngir sàkk lu dagan xam ni yàllaa ko ko digal li mu war a dundale ak njabootam dundal ci boppam daa war a nekk lu dagan yonent bi salaay salaam nee ñaanu. ko xamni limi duggal ci biiram nekkul lu dagan suñ borom du ko nangu mukk kon nit ki sakku lu dagam farata tala ci moom jeuf sëñ bi beneen bi ci toog mo ni lan moy atep mustalaf mo xamni bu ko bu ni bu ko nexe bu julli lan moy atep ko xamni bu ko nexe julli bu ko tam bu bañu wa ko ko dem mo wax dëgg am julli la bu sagan rek ab julli bu sagan moy def loolu julli bu sàggan mooy def bu ko neexee julli bu ko neexee ñàkk julli loolu kenn du ko def nit ki daa war a sax ci julli xam ne yàllaa ko ko tigal sëñ Tuubaa nee na wa man aqarra bil wujubi wamtana'a min fi'liha wala lu usrun yaqa fa innahu muaxarun atayi ji waxtu solaat li waxtu solaat yi ji mooy nit ki saabu saxalee ni julli am na waaye du ko bañ a def hmm. dañuy bàyyi ba waxtu julli ñëw ñu digal ko mu julli bu lànkee ñu bàyyi ba waxtu wa jeex moxtaar ma des ñu digal ko mu julli mu lànk ñu bàyyi ba waxtu wala ci des bëreetul daanu jéem ci des matut ab rakka mën a mënee su caa dal ñu digal ko mu lànk bu lànkee ñu rey kon jàpp naa ni nit ñi ne war a bari na. jërëjëf mu mel ñetti laaj moo ci des beneen bi topp moo di ñiy dugg ci gaal yi di dem Espagne par ñu faatu nee na ndax loolu xaru la wala du xaru maanaam kuy dugg ci gaal yi ba noppi daal di xaru la wala du xaru. yande yande waaw jërëjëf ñi dugg ci gaan yi yëpp kaay kaay kaay suñu borom leen taw bi allo suñu yande ñi ca bëgg dem ñëpp yàlla na leen teg ci yoonu jàmm xaar xaar ki jësi la xaar ki jësi la ca dem bëgg dem ñëpp yàlla na leen yàlla teg ci yoonu jàmm yande yande yande suñu borom dafa leen taw bi dama fran taxi bi dama jàll ma nga nit ki dugg ci gaal suñu borom dogal ci moom mu faat ah. ci moom mu faat ñoom ñaar ñooy ki ñuy waxtaan mooy kan mooy ki nga xam ne dafa am yéene xaru mooy day dugg ci géej gi ngir fas yéene rey boppam wala ki takk ah, boppam ak buum takk ko ci garab ngir fas yéene dee wala ki gis ab teen dem tàbb ca teen ba te tey kooku la ñuy wax ni daa xaru waaye ki nga xamante ni daa bàyyi ay waajuram bàyyi soxna bàyyi ay doom kooku mbokk yi bu duggee ci gaal di dem kooku xaru tax ko te lu mu dundale ak njabootam lu dagat moo ko tax kooku dañ ko war a ñaanal xam ni ci yoonu yàlla lay def Ah, ci yoonu yàlla lay def ki nit ki buy xëy maanaam exemple mooy nit ki xëy dugg ab salet jëm marché Gora Diop daa jóge këram dugg oto wala dugg Jakarta dem marché di liggéey lu lu mu lu mu sàkkul ak njabootam moo ko tax a lu mu sàkkul ak njabootam moo ko tax a jóg léegi anam ki nga xamante si daa jàpp ne wërsëgam Espagne la nekk wala bërëb sàngam la nekk mu fas yéene te mënut a jaar ci avion yi jaare ko ci bu ci faatoo kenn nekkul ko xari bu ci faatoo suñ borom mën a koo yërëm sax bokk boole ko ca ca ña nga xam ni ñoom la yoon te ndam waaw kon ku bëgg leen ku nekk yàlla na yàlla ci yoon jàpp sëñ bi kon da xam naa ne yoonu gaal bi doom dana bëri embouteillage yoonu gaal bi kon man maa ngi waaj meen euh, bi ñu def moo ni élection yi ñu jëm lan moo ci taxawaay ab jullit élection yi ab jullit ban taxawaay la ci war a am. waaw jërëjëf loolu ab tomb la mooy élection yi di ñëw nit ki nan la ci war a taxawee ab jullit nan la war a taxawee ci élection yi. nan la seize seize seize. xanaa bu fekkee ba tànn ab jullit seize. fukki kandi wala ñaar fukki kandidaay ak benn nañ xool nañ xool na nga xool yow ka ci di ab jullit. te jullit ga dëggal nga jox ko sa kàddu bu fekkee da ngaa wootee nit ki ngir parparloo ngir ni am murid la wala tijaan la wala xaadir la wala laayeen laayeen la ci ci ci askan wi la bokk te nekkul ku dëggal buñ ko falee bu nekk lu mu def lu nekk am nga ca responsabilité kon nañ xool ka gën ca nit ña gën caa ragal yàlla gën caa sàmm ak diine ñu jox ko seen carte xam ne koo koy jëriñ réew waaye buñ xool koo xamante si nii bànneexam rekk la topp xam-xamam mëtut dara mëtut ko joxee mën na ko yàq nga sànnil ko carte da nga xam ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi taal sam réew bi ci toppaati mooy yaa ngi fekk ab taal buy tàkk nga di ci dugal sawar nga di ci dugal ay matt ngir taal taal ba gën a tàkk loolu dalay adduna jëw kon nañ tànn ki nga xamante si ni moo gën ci réew mi ñu teg ko fi ngir mu liggéey senegal Sénégal nag yaakaar naa liggéey ko du yomb ndax dafi yàqu daa bari dëgg la de jërëjëf sëñ bi kon bu mel ni laaj yi benn moo ci des muy lan mooy ko ko nii ñu def ni ni di wat sunu ben membre bu bokon ci dayre bi ni koy wax soxna kan xali si ñaar yàlla dogal mu wuy ji ni koy ñaan ñaanalaale ci bis bi fàttali ko ñu leen ko akuma ni serigne Tuuba si la ban den la am loolu wax yalla ndari ñam mom lu bare bare la moy ñaanam ko jóge ni jeex na dara gën ko reuy te tax moy nit ki bu xasee faatu moytu ta jaamu yàlla moytu ta natt asaka moytu ta dem màkka moytu ta def lenn liñ doon def ci àdduna rek moo koy jël ak ay ñaan te yow mi nga xamante si ni yaay ñaanal ki nga xam ne moo la jiitu saa bu ñaan nga egsee ci moom malaaka yi ko koy jottali ni ko diw sàngam moo la ko jox doomu déwut déwut diw moom jëm moom moom ñaan gi egsi ci moom mu daal di ñaanal ki ko doon ñaanal suñ borom gën ko faa yàggal kon loolu bokk na ci mooy booy ñaanal way dawle yi suñ boroom day gën a dugg day gën a day gën a yokk sa wërsëg suñ borom day gën a kuddal saw fan lu am solo la te nit ki da cee war a góorgóorlu di góor góor di def ab dog bis bu nekk bu ko yemale ci ajjuma ci guddi gi kese waaye bis bu nekk fexeel ba dogoo ci alxuraan loo xam ni wala xasida wala salaatu ala nabi wala istighfar wala lu manti doon nga ni naa ko yéeneel way dawle bis bu nekk yéene ko ñëpp nga ni naa ko mboolem jullit bu jiitu boo koy def de bis bu nekk da nga gis ak dolli ko ci sa bopp yow waxuma la dara waaye sa xel day dal yow sa xel day dal sa gëm yàlla day gën a yokk tey dangay xam ne yow boo fi jógee doo ñàkk ñu lay ñaanal kon loolu lu am solo la nit ñi fexe bay ñaanal ñu jiitu ndax Sëñ Tuubaa nee na ñooña bu nit ki bu xasee faatu amutul leen lu koy jëriñ ci biir bàmmeelam du lu ñaan te amutul deltu ginnaaw bàmmeel boo fa xasee dugg moom amutul deltu ginnaaw moom ñëwaat adduna di jaamu yàlla amutul dëgg la kon lépp lay daal di dagg lépp lay daal di jeex da la cee dimbali rek mooy lan mooy nga bàyyi woon nit ñu baax ñu lay ñaanal loolu kon lu am solo la fexe bay ñaanal ñi nga xam ne dañ dañoo jiitu ngir lan ngir xam ni lu yombal xiyam dara du fa doy te nit ki dana dana nit ki day nekk ci biir bàmmeelam wala mu nekk yombal xiyam suñ borom di ko xéewal ba xéewal nga jeex léegi nag la koy dimbali ngir xéewal boo gën a yokk mooy ñu di ko ñaanal di ko fàttali kon Serigne Touba si li fàttaliku lu am solo la te fàttaliku nit ba ba nga koy fàttalikoo bokk na ca wu yërmande suñu borom dafay wàcc yërmande suñu borom exemple mooy fii ko defee tey yërmande suñu borom dafay wàcc nit ki toog ci bu xam di ñaanal way daaw la yu jiitu fa mu koy defee suñu borom dafay wàcc yërmande suñu borom dafay wàcc xéewal kon loolu am solo la jërëjëf ci laaj bu am solo boobu. jërëjëf sëriñ Mourtala loo suñu borom yàggal la fi trop kon loolu di marché di jàng xalbu bi kamil bi doon jàng Main di yeewi suñu wax laa mbàkke maa ngi sàkkoon na ci jotaay bi ñëpp ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi ndax suñ Tuubaa lii képp la bëgg ci dëkkam bii ba muy sañ ci dëkk bi njàng ak njàngale tax mu sant ko ak jaamu yàlla te yàlla dafa wax ni xam-xam ku ko man ba a rëbb na waaye yow deful loolu noo ngi ñaan suñu borom yokk say teraanga ci bàkki ci bàkki seen ak bu Bamba ñoo ngi dalal ñi nga xam ne leen dal yàlla bés bi waa groupe Safar Gueye di njiital seen Mbàkke Saw ñoom seen Seex Kat mu bàyyi seen war a jàng jàng yi àgsi na léegi ko defee nano maase ñëpp teewlu ñu jàng xam bi ñu wóy di jàngum xasida bi li ci des nag tuuti na ñoo ngi sàkku teew ben ngasin jande jang bu pare Amin. Amin.